caatu yaraax yóbbu la ma caatu yaraax caatu yaraax jërëjëf bi nga seer ko ah yow yaa fi teewal Bijou Ngoné grand Yandé moo fi teewal Bijou Ngoné grand ma ne yaa fi teewal Bijou moo fi teewal Bijou Ngoné moom lañ bi Bijou Ngoné borom 2STV borom confrontation grand Yandé maa ñi fi nekk ñëpp di ziyaare ñëpp di ñaan yàlla làmb yi ñu def ko si jàmm génn si jàmm si barke Seydina Mohamed bi nag mooy drapeau Bijou Ngoné jigéen bu mën góor jigéen bu am fulla si boppam am fayda si boppam parce que ñun jekk-jekk tuddee ni drapeau lépp lu ñuy def rek dafa am benn situation bu ñuy xool ba xool xam sa incarnation xam sa am jom xam sa fulla acceptation daal te ñu doog la jox suñuy wàll tuddee la drapeau li nag mooy drapeau bi suñu wane pare na am na jom nangu na liggéey merci lan bi jërëjëf eh kay de ma caat toog jari la toog yera caat Bileze. mën na maa ngi lay nuyu bu baax di la seet waaw Lamine maa ngi di nuyu bu baax baax di nuyu képp teew di nuyu téléspectateurs yi di nuyu mbokk internet yi di nuyu suma adversaire di nuyu suma grand bi nga xamante ni mooy Général Malika di nuyu Pape Matar ñoom Biya ak suma mu fi ma àndal ñun ma fi yaa xool sedd ak suma gaa yëpp maa ngi di bëggee di leen ziar di nuyu àdduna di nuyu kilifa bi yëpp waaw adversaire moom yaakaar amatul li wax ko wax na waxati waxati si yàlla dogal na soogay tourné te bu soobee yàlla le 27 non moom dina xam kan mooy Bul Reseau. auzu billaahi mina sheytaani rajiim ñu ngi wutu seytaane di sant yàlla bu baax di julli maanaam julli yonent di sant suñu waajur. Bul Reseau mi dama koy wax bëriwul xam nga ñu yàlla kii xam na ne bu baax dama moromoo. Messenger du moromul loocoo ci géej man la su taari ci kanam lay dabe bu fa yegee mbaalam diig ki xaar fa dof wax ma leen waaye ma ne dof dof na fan dof wala ngi fan wala Dakar fii nit a fi nekk kii bàyyi ko muy wax nga gis nga xamal ngeen nga min gis nga bëy nga bëy cib cib bi nag lekk na ko démb noppi toog kii daa bëri wax rek mais le 27. Sampaara ay combat yu gaaw lay bëri nag. waaw macha allah mais ñun ay combat yu neex la ñuy bëri loolu yàlla moo ko def te tey ji moom le 27 incha allah sa retour le 27 barki Alxuraan yi kër gaa yi dinañ yéemu si Bulldozer xam tax kii dinaa ko te dinaa daan dinaa ko wan ne moom wax jee bëri nii rek kii amagul adversaire bu man. kon yow da ngay nappe mais billahi su mi lëndëmee maa naan ko fi ngay toog gis nga ndaw bu daar ndaw koy buddi kii li may usé xajul ci moom te bulldozer ma am yëpp xam nga mu ngi cité taxaw ci média yi di wax di ratatati caatu yoraax ay jabar la am Kër Massar man sama a quatre-vingt-onze am titre foncier Kër Massar ki xaar fa dof ki xamul de da ngay laajte fausse information yi nga joxe man mi dugg bu sa biir igri sa second réseau ma jël ko def li ma ci def delloo ko fa bul de ma nga xam de xamoo ma tey ngay te la vingt sept te ci kàttanu yàlla bu fekkee ba sunu ngay wootee te muy dëgg Fallou Ndiaye yaa ñu dégg sama résultat soxla ma ci dara billahi à l'âge de huit ans laa def boss il parle avec un garde rapproché man ministère laa nekk li ñu ba jox man ministre c'est parce que dama nekk professionnel kii bu gëmee boppam nañ samp ak moom billaay boo xeexee mu door a garaaf xam wax naan ay garde ko a seet ay naan Senghor bi kii muy wax nii yaa ngi dégg day wax ni rek nee naa la kii wax ju bari wax moo ko des si gàmb ji est-ce que yaa ngi may dégg ay garde ko bëgg lii ay garde ko bëgg ay nangam dañuy bëree naa benn affaire yaa ngi wax yaa ngi wax di bëri wax alxuraan kër nga 27 di góob ci 27 moo amul. nga 27 waaw Seydina Mohamed di nga wax yow maa la mën te maa la ëpp doole. eh ñu romb nga amul ay ndaw ak ay ñàkk ndaw. gis nga naa la leen de. kii da nga dox kii man maa ko maîtrise kii man maa ko maîtrise ñu di wax di kii di kii man maa ko gën a neex góor kii ba àdduna bi suba de ba ma toog nii nga mel. déggoo ma de man xale bu ndaw laa nga mel. barki Seydina Mohamed kii moom mag. dina moom bëri seconde ka wax la daf maa dab ci lamb lamb yi ma doon bëree damay samb cinq minutes ba dix minutes bu ko neexee moom ñu bëree damaa xam ne kii tey Fallou waruma mën a fay fay ko moom mu taxaw a day sama sama lamb man day yàgg loolu du waxu góor yàlla jërëjëf kontaan naa ci yéen Fallou Ndiaye jógal Fallou Ndiaye jërëjëf Ndiaye yow yaa yaa ñu sa man mbër ñemewu man xam nga suñu mbër taxaw sama kanam parce que Seydina Mohamed nii sama mbër setul bi waaw baax na eh non non yaa ngi tuddee xam nga ci fa alquran kay bu arbitre tibé ah dinaa la dumbata naa la sa diggante rek yow sa diggante rek kii maa woo lépp lu di am waaw baax na foo góor yow jabar nga ko yow ngeen nga moom da ngay tëdd ma moo gën di mooy. dafa maa eh, law ma def ko man moo gën di jaaxal man waruma di doxal. laawul na yow doo góor yàlla wax ju bëri doom nga mën yaa ngi soog am combat barki Seydina Muhammad yaa ngi soog am combat yow daal du ma daal daal muñu ko nga demaat nit wax del wax Ndiaye nga am Ndiaye ni problème da bu sax mën nañoo wax sans dépassé mën nañoo wax sans dépassé mais dinaa la xamal loolu. dinaa la duma te dinaa la sa loxo nga wax loolu mënoo si dara. dama ne la nga teg sa loxo nga wax dinaa la duma te dinaa la dara. nga yaakaar. dooleem la yaakaar dooleem. kër moom doole. ah xaw ma man kay xaw ma. jërëjëf moo ko doole man maa la dàq bëri maa la dàq. aywa maa lay taxawal nii nag.